waaw waaw waaw ah maa gis. est nii wax naa ko ci am rek. a gêné ko. moo tax. ñoom ñëwuñu de yàlla na woo. wallaay dëgg la. dafa am loo xam ne day téemaan nit. kii ci sama loxo la jaar. te du woon wàllum rajo ku bëggoon ab rajo la rek. day caméraman la fa la nekk ci ñoom moom ñoom ñoom. yàllaa ko fi indi mu ñëw fekk mu mm-hmm. fi bu dee ni mu mel ci kii mm-hmm. moom laa mel ci Ameth kii démb dama ko woo mm-hmm. ma ne ko su ma deewoon xanaa du yow yaa war a seede ci loolu laa ko wax mu may woowaat di ma wax pour wax la rek ne la yàlla dañoo dajale fii mais yéen da ngeen fee nekk ñu lépp dañ leen koo dénk wallaay dëgg soxlawuñu dara ci suñuy jëmm wala dara du kenn ku bon ci ñoom déedéet déedéet ndax foo toll rek tey jii maa ngi koy suivre maa ngi suivre kii kii ñoo ne ndax ñu dañuy zappé ci télé rek bu ñu jógee ci lu ñuy liggéey ay auditeurs lañ comme ñëpp ay téléspectateurs lañ comme ñëpp mais amaana seytaane yéen rek lay daw yéen ñi yàlla may kon ñun tout le temps dañuy ñaan di ci muslu rek mais lii nii bu dul woon dara toog gi nii rek lu yàlla na moon la mm-hmm. waaye yow it loo namoon la li nga ñuy nëbb nag yàlla nañu koy nëbb te continuer rek yàlla